yow lañ doon xaar dikk ñëw yow lañ doon xaar ñëw nga. waaw. moom lañ doon xaar ñëw na moom lañ doon xaar dikk na. du yegg si bii kii du ñëw fan la jëm waaye nekkoon. billaahi dama nekk si biir yow nekkatoo. yow nga toog trois ans bëre woo man ma rangale booy yëpp nga ni dañ may yow nga ni dañ ma dikkee wa wa so damay xeex ak yow doo xeex da sob nga yaakaar ni tribune bi da sob dara de bés boo xeex bés boo xeexee ma duma la moytul li la say mbokk wax def ko bu baax moytul doomu jalaaw jàppal su ma la dàqul su ma ko dàqul bëre yàlla bu ma fanaan billaahi wallaahi wa taalaay maa la dàq bëre fuuf lamba jaa ngi ñuy seede ki dàq bëre man ak yow yàlla ko yàlla may ndam yow da nga yow yow yandaar billaahi wallaahi ki dàq bëre dàq xeex yàlla na ko yàlla may ndam soo bëggee ñu bañ a xeex ñu bëre soo bëggee ñu xeex mu duma la dama ne lamba ji. nekk ci nit ñi. yow ci nit ñi la nappal mën ci jàmm. dama ne lenn laa lay yëgal. lenn rek laa lay yëgal. bëre dóor la ñuy wax. dinaa la duma dinaa la daal. yow bu sumee koo lamba dañuy xam ne état yi bokkul. état yi bokkul bëre bu bokkul. yow sa ancien état bii nga may wax. amoo doole màgget nga. 300 bëriwul nga may wax. xam nga lamb nit ku nekk. nit ku nekk y a des et des bas. lijjanti sa lamb ngay lijjanti xamoo noo koy da jaar ci man da jaar ci man may la loxo may la sens bëree woo benn grand xamu la man ma bëree onze grand combat nga naa ma bëriwu ma grand combat moo kii waaye bëri na eh, kii bëri na combat yu mag yu bari kii ndongoloo moo ma bëri ay grand combat fii su ma noon a wax dinañ na ay grand rek laa koy xamal barki alxuraan ndongoloo moo tax ma xam ko kii dafa war a gërëm ndongoloo billaahi wallaahi déggal ma naan ndongoloo yow yéen ñaar seen bëre dina am xeex non kii dañuy xeex dañuy bëre kii dafa toog année balance damay xeex ak moom bu ñu àttee mu yaakaar ne dañ koy sot kii may xeex ak moom xeex bu rëy nga naa ma damay xeex ak yow duma la daan la loolu kii dama bëgg yow nga yegg ko wax kat mooy doomu jalaaw lenn rek laa koy xamal mooy wax ji bëri na mu mel ni ku bëy nàmpal nii gis na man du ma ko topp ci ay wax parce que làmmiñam dafa rëy mais euh, li ma koy xamal lu tuuti rek le jour ji xa du ne dafa mel ni dañ mooy sot mais li koy daan moom sax du ko gis woote sa morom woote mais euh, daf ma këf sax si wax ji ñu ñi ma àndal su booy nung suma doom ji ah ak suma coach su Konaté ah di woo di woo monsieur le maire Gorgui Ciss le professeur des professeurs Adama Niang monsieur le maire de Rufisque maa ngi koy gërëm suma maam nag aw ma fayam combat bi li si war yëpp def na ko di gërëm waa Jalaaw bi leen woo parce que aw ma tey lu dul Jalaaw xam nga tey bu ma jógee lépp pur 100 pour cent ah su ma Jalaaw dañuy jóg tund bu jóg ñëpp jóg te maire le Gorgui Ciss nee moom billet yëpp moo ko res incha allahu kon maa ngi woote waa Tëngéej gi nga xamante ne nii fa laa nekk di woo ñëpp ñu ñëw ci combat booy bu xamante ne dafa rëy lan nañ mel ni ko ay béy nàmpal dinaa la duma naa la daal man mosuma wax ci signature laajal Modou man mosuma wax kii si mais comme béy yi ñuy tëggal man mel ni béy comme ñoom eh, eh, kii grand jàpp si si doo sit ah si doo sit dama jàppale sa rakk ji mu nekk champion moo gën yow ko yor la ma di wax si la site ban man li may wax yi ñu ngi fii taxaw di déglu yow yandaa dalaa téye fii fooy man damaa téye yandaa bëreloo ko ba munul naan ndox non yow su la neexee ñu bëree 60 minutes ci lan. yow si ah, ci lan xool waa ci waa kii man damay balaa may balaa may balaa may wax dara damay gërëm zoo technique zoo zoo technique day jàppale làmb nekk booy boo xamante ni xam nga mënoon na génn si làmb jàpp bañ def leneen mais dafay ñëw di jàppale làmb zoo technique ñu ngi koy ñaanal lu mën ren yàlla mën lu ko raw di woo père ba père ba dama bëgg mu jàppale si mu ja yàgg na ma jàppale mais combat bi mu jàppale ma si di woo bëy di ba monsieur le maire pour mu jàpp si combat bi di woo Fouta di woo Andaw di ñaanal suma rakk yi ñu am ndam c'est que man dama daan noppi su ma ñëwee daan la ñibbi kenn du la xam ma léegi nag damay mel ni seko su ma ñëwee daan la isa xamulu ma la damay ñëw mel ni seko daan la billaay wallaay wa taala ki maa ko dàq bëre fuuf fuuf waxewu ma nag pour dara dama wax pour nga laaj boo yi ma dëkk maa la dàq bëre non xam nga tey jii maa ngi gërëm monsieur le maire Amadou Samb ak euh, suma doom nday Fifty Lamine Diop monsieur le maire xamali ma la bon fi mu toll nii ñooñu maa leen parce que ñoom ñëpp dañ may jàppale si combat bi booy bi aw ma lu may wax moom yow instant yi da ngay négo lu may négocier. waaw waaw. macha allah. waaw li rafet na waay waaw waaw sport nii la nii ki daas ki daas. ci baas tamit waaw waaw